mais si mais même <laughs> non. en tout cas sa bureau municipal implosé nañ ko. ku la quoi tëppale. ah xam nga tey dafa am. ay sa bureau municipal implosé na de. non xam nga xam nga lan moo doy waar. waaw ah. yow nga am journal tey Sénégal nga toog fii ma yónnee la article nga publier ko fekk xamoo li fa xew. man li wala xam nga jamono kii lañ doon wax weddi gis bokku ci jamono paa bi weddi gis bokku ci les vidéos là moi j'ai fait un direct sur ma page Facebook. tous les Sénégalais ont vu. non man je parle du conseil municipal. conseil municipal absolument ah, rien de. non adjoint maire est-ce que dese woo benn wala ñaar non conseil municipal nga wax. waaw. conseil municipal dafa am des des militants de PASTEF du PDS de benn Bokk Yaakaar de de de donc de de nous autres et cetera du dëgg. Le conseil municipal dernier s'est tenu, il y a eu des gens qui étaient venus dans l'intention manifeste de saboter. Dégg nga. ñu soulever ay problèmes ay vices de procédure ay yooyu mais xam nga le conseil est l'instance qui délibère mais bi ñuy waxtaan pendant les deux premières heures à trois premières heures bi ñuy waxtaan y avait le public parce que c'est ouvert au public y avait le public mais puisque je voulais pas arrêter la session et dire au public de sortir j'ai préféré d'abord que le conseil statue pour dire en ah, est-ce que est-ce que dama ne dama ne dama bëggoon conseil bi continuer liggéeyam ba wax ndax dañuy continuer réunion bu ou pas waaw ku majoritaire bu dee ñoom ñoo majoritaire woon kay conseil bi. fa la ñu voté waa benn nee nañ dañ ñoom ñoo. jàpp ba travaux yi yegg. non non non non non non 63 conseillers présents. les 49 on voté pour xam nga boo waxee pour 49 yëkkati seen loxo ñeneen ñi dañuy dañuy sax yëkkati. waaw mais nee nañu ce sont des directives. Euh, qu'ils ont donné. non kon ça n'a rien à n'a rien à voir euh, travaux yi yegg. loolu mooy waxu baal ci kàddu gi Sénégal yi ma baal loolu mooy waxu dof yow yaa ngi bëgg a jéem nga ba ñu voté ma ne léegi waa waa conseil municipal Kolda ne dañuy continuer liggéey bi fekk def nañ ñetti waxtu ma ne léegi nañ jël pause su 15 minutes. les conseillers municipaux de Kolda nous écoutent dañ jël pause bi ñu jëlee pause ma ne léegi les militants de Mame Boye Diao comme les militants des autres doivent sortir de la salle j'ai écrit une lettre au commissaire central de Kolda ma ne ko ñun dañoo war a continuer suñu liggéey ci salle bi sauf diw ak diw ak diw kenn waru fa bokk conseillers yëpp toog ñu liggéey ba ñu pare. mais Mame Boye xam nga politique ay symbole la. waa léegi six mois. je suis parti aux élections dans une liste consensuelle parce qu'on est parti en coalition un adjoint au maire est, de Benno il veut rester dans Benno il faut même pas qu'ils disent qu'ils m'ont dépouillé comprendre les deux adjoints qui sont partis ils sont toujours dans Benno ils sont pas partis rejoindre quelqu'un d'autre ils étaient dans Benno ils sont restés dans Benno le troisième lui aussi il était venu avec un mouvement il est parti mais maintenant moi ceux qui étaient avec moi sont restés avec moi. mais Mame Boye politique dafa am ay symbole xam nga yow boo ñi nga ni nga gagné. yaa ngi doon euh, wax réforme